Ah, yow dee baax na wajaahidu lañ wax bi ñu la tax fi sabilillahi ñu ne bi amwaalikum ne wa anfusikum door na fi sabilillah sama sopp waaw am yàlla boole sopp mi ngi ñëw de mi ngi ñëw de mi ngi ñëw de ay cëli waay ay cëli na waay ay cëli na bokk yi ay cëli na waay Oustaz Alioune Sall woote na bokk yi ay cëleen na ñëw ay ca leen ku jóg waaxu daagu ñëw baatare yàlla nañ ko def biir aljanna incha allah waaw xajal leen ñii waaxu ñëw di baatare waaw fii baatare bu ne xew na fi cérémonie bu ne organisé nañ ko fi waaye baatareel alxuraan a gën a yell jërëjëf Oustaz Alioune Sall na ñëw na ñëw na ñëw na ñëw na ñëw waa leen góor na ñëw ne nañ ma daam loo am na loo ma jox mhm. daam jërëjëf yàlla na yàlla fay la as mi woote it am na lu ma jox moom tamit yàlla yàlla fay ko waaw min ka ilayka la aca borom mbuus yiñ bind wa jaahidu circulé leen ci nit ñi ñi ngi ñaan nag mbokk yi koo xam ne yoroo mbuusu wa jaahidu waaxul ba yegg si fii joxe bul yóbbante kenn ñëwalal sa bopp ñi ngi ñaan itam ku yorul mbuus te it néew la am yóbbul toogal sab jataay rek oustaz nee na waxul ak yow